Euh, di parti alliés yi toll si juróom-ñaari parti ak benn mouvement li waral suñu teewaay fii mooy si département bu Mbacké ndax it nag euh, dañu gis depuis 2012 ba léegi Benno Bokk Yaakaar mosul gagné département bi di Mbacké waaye ci kaw loolu ñu gis ne parti alliés yi doole bi leen war a jox ak gëdd bi leen war a jox dafa des am nañ nag ay organisation yoo xamee ne def nañ ko au niveau de Touba ñu tuddee ko ay zone mais si biir zone yooyu dañ koo def seize zone muy fukki zone ak juróom-benn ñu jël benn zone na zone allié yi la mais bu ñu xoolee si plan bi dañu jàpp ne zone am na fu muy tàmbalee waaye am na fu mu war a yem exemple boo jëloon fu mel ne Daaru Minam am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem. mais parti allié yi fan nga ko mën a commencé ak fan nga ko mën a yem loolu ñu gis ne doxalut li nga xamee ne moom la ñuy liggéey bu fekkee que ni bëgg nañu gagné élection yi di soir du 25 février 2024 jàpp naa ne organisation bii ñu organisé dinañ ko sensé bu ñu jëlee lu mel lu toll ci fukki parti ak nangam bëgg leen a boole ci benn kuréel jàpp naa ne mooy li nga xamee ne bëgg nañoo def nagu tong tong nagu tong tong nag lu ci waaye am danga koy jëmee sa kër. te jàpp nañu ñun li ñu tax a jóg mooy le président Amadou Ba am ndam continuer li nga xam ne mooy euh, plan émergent plan Sénégal émergent loolu moo permettre suñu dajee tey fii. ñi ngi woon nag le président Amadou Ba moom la ñu interpellé directement bu fekkee que ni nag si département Mbacké bi rawatina commune de bëgg na si am ndam il fallait que organisation bi nga xamee ne waa APR ñi koy organiser fii si Touba ñu sensé ko. ndax it amul benn parti tey boo mën a posé ak APR mu ëpp ko doole fii si biir Touba kon dootuñu mën a nangu mukk ñu jël ay cër cëre la ko mbooleem fukki parti fukki zone ak juróom jël lu toll ak fukki parti ak nangam ak mouvement yi nekk si biir ñu bëgg leen a cëre la benn loolu mooy leen dem leen ngeen tojante ay bopp te ñun dépassé nañu foofu. ñi ngi wax nag ñi nga xamee ne ñoom lañ ne ñoom ñooy kilifa yi fii si département bi ku si mel ne Serigne Abdou Bali ku ci mel ne maxtar euh, Diop ku ci mel ni laa Abdoulaye Seck Sadaga ku ci mel ne Pa Alla Sylla ñu ngi leen interpréter directement di leen wax ne lii ñu bëgg a doxal du jàll ndax it nag mënuñu di wax ne golo dafay bay baabul di dundee def nañ loo xamee nag am ñu ñu jël ne ñoom ñooy coordonné allié yi loolu mënta nekk ndax amul benn parti bu mën a boot parti moroomam mënta nekk kon li ñu gëm mooy parti bu ne war na mën a liggéeyal boppam dem si ay militant dem si ay responsable am liggéey pour lan ci soir de février ñu mën a gagné élection bi fii si département bu Mbacké loolu moo waral suñu teewaay tey fii si salle bi tombeek ba fanweeri fan ak benn si weeru janvier moo waral ñu teew fii pour jéem a dénoncer loolu loolu nag def nañ mémorandum incha allah dinañ fexe le président de coalition muy président Macky Sall jot ko mais dinañ fexe le coordinateur de coalition muy président Moustapha Niass mu jot ko ak mbooleem leader de parti ñu jot ko ak mbooleem kilifa yi nga xam ne mooy si parti bi ndax vraiment defet yi dafa doy te li ko waral mooy mbooleem doo gis ñu koy liggéey fii dañ koy bëgg a def séddale bukki ba bii bukki bii njuur bii sàmba bii ki bàyyam dee te njëkk naa si loolu moom ñu ko nangu asalaamaaleykum wa rahmatullah il faut les partisans soient reconnus. Pour cela, on a mis en place un mémorandum que c'est le Vu trans dans la coordination et de l'organisation de la coalition au niveau du département de Mbacké, vu la marginalisation des partis politiques et mouvements alliés au sein de la coalition, la situation alarmante de la coalition au niveau du département, les résultats catastrophiques de la coalition dans le département aussi. Vu les enjeux politiques actuels avec euh, les échéances pour euh, euh, le 25 février aussi l'obligation de remporter ces élections au niveau du département, parce que nous, vivons dans le département le plus peuplé. Et vraiment, cette séance-là, nous pouvons euh, euh, la gagner. Sept partis politiques et un mouvement ont décidé d'unir leurs forces et de mettre en place une coordination leur permettant de travailler en synergie pour relever les défis qui mènent à la victoire. Et pour ces partis signataires, chaque parti a l'aval du président mais aussi des coordonnateurs départementaux. Et tous ces partis alliés qui unissent leurs forces, qui unissent leurs forces, donc ce mercredi 31 janvier se fixe comme objectif qui nous permettra de vaincre ces C'est-à-dire fédérer les forces et faire régner la coalition dans le département. Impliquer toutes les sensibilités sans exception aucune. Être au contact de toutes les franges de la population de Mbacké. Une nouvelle approche avec l'émergence de nouvelles têtes capables de relever le défi parce qu'on en a marre des Pour ce faire, on attend aussi de la coordination nationale de la coalition, c'est-à-dire de la présidence de la coalition, à savoir le président de la République Macky ainsi que le coordonnateur Moustapha Niasse. de meilleures conditions de travail. Parce que pour vaincre, il nous faut des moyens logistiques, mais aussi des moyens financiers. Il nous faut aussi un meilleur choix de leadership qui tient compte de nos griefs. Parce qu'on constate que la coalition a une crise de leadership dans le département.